je rime. yaa ah diggu Dakar. waaw waaw parce que maay borom. alors Haki. bonsoir à toutes et tous. salaamaaleykum bonsoir. Kaay Koba bonsoir. Kaay Koba bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver, amis chers téléspectateurs. Bonsoir et bienvenue sur cette antenne, la première chaîne de télévision privée du Sénégal. Où que vous soyez, qui que vous soyez, nous vous disons bonsoir et bonsoir à toi l'international la star Racky. mais Richard ci loolu ne. ay baax yaa ngi cool. maa ngi ci gré yaa ngi si jàmm. mais public bi na ngeen def. yéen a ngi si jàmm. yéen lan laa leen waxoon sànq. yéen yéenay baadoo la. lan laa leen waxoon sànq. yéen bi ma nee leen bonsoir yéen xale yu góor yi kenn tontuwuma jigéen ñi rek ma tontu. kii ni bonsoir ay baatu góor rek laa dégg. ngay la leen wóoru leen ma. waaye yéen a xam xanaa jigéen ñi kan ngeen góor eh, yéen bëgg man dama taxaw ne ñu xool ma ne ku ëppale ku ëppale bot jële baax ñu xool fii laa leen di jàppee fii laa leen di bàyyi ok waxal ñi ànd ak yow dañu wax waxal eh ana ñi ànd ak man je vous aime xaar xaar xaar xaar xaar <laughs> waa ah, déet déet xaar ah. gàcce gàcce bu nu weesu de xaar leen eh. xaar leen. ay eh? def leen nang def leen eh, oh, oh, oh. bu leen may dara bu leen ko mu wax bu leen ko bàyyi mu wax. léegi léegi déglu léegi léegi waaye xale góor yooyu noppi yéen. Ah, ay ay ay. daf may njëkk a dund def naa daal ma xool dafa am bi dina jóg ma xool. maa ba kii raw. waaw ok <laughs> ah non non non eh, bu leen def ni sama góor bu leen def ni sama góor yéen yàlla. ma ci non seet leen ma ci bon c'est bon amul problème sans souci vas-y vas-y xam nga xam nga bis bisu ndam bu nekk benn gàcce mënu si ñàkk <laughs> service la xarit am ngeen problème. lii lépp rek cœur brisé la bu dul cœur brisé du demee nii de. billahi. ana ñu. dama xew mel ni DJ Kheucha. fi ma koy yëngal di ko yëngal ba ñëpp ne mën a. waaw jamono ji xew a doole. ana ñu bëgg Roger. ana ñu bëgg Roger. Amee Ro. Ro.

téye huit. i waaw. huit candidats la ñu war a éliminer war a éliminer. tout en sachant qu'ils sont tous. talentueux à la même hauteur. tous talentueux. ça va être serré ça va alors naka la nar deme demee nga yaakaar kon. ah xëcc xale yi def nañu seeni ay duo. waaw mais daal. Euh, gis naa best léegi. ah nee na son yi ay medley la medley nañ koy wax non. medley waaw nee na son la dañoo cof fii daal def ko benn single. ba ko liggéey parce que dafa toog semaine boo xamante ni. defuñu quart de finale ba pare son yi dafa yéex a dugg moo lay wan ni mi ngi woon studio boobu ba léegi. ba pare temps bi dafa xat nelu dafa jeex xool ko. waaw waaw waaw di nga jeex kay. borom borom ñaari yi topp musique bi ñaari galo. bool ko booleeg musique day ah. Ah. yaay saykat de. mais nag kay wax la ah. toogaay bee jekk na lool. waaye am na ku ci war woon toog. Ah. ndax bul fàtte ni barki dee am na ku ci marié. waaw waaw eh, waaw eh. Padros waay. Ah. waaye le nouveau marié. heureux ménage. l'histoire retiendra que l'international Padros est le premier marié bi nga xam ni moo teg orchestre déglu leen de. Ah. woo Sénégal yëpp <laughs> artistes yëpp Padros def vingt cinq ñawam ak lu tolloo bàyyi jabaram Europe xew-xew mi. <laughs> mu ngi nii yëg jugal jugal taxaw moo moo doon simeeku moo doon solu mooy photo wu mooy vidéo waay mbay yaa mbaax mbay musa jëma kumba seen mbay goli fatima joojo borom ngaay njira mbay demba xoy mbay demba lati mbay demba yàpp mbay patros ay déedéet non non non patros patros c'est pas ça patros bu ko jox dafa koy nangu nii Patros fais pas ça. dafa ma amee xaalis. Patros na bég na bég. bul def na bég bul def. waaw waaw. ok Mbaye li nga xam loolu nga xam li nga xam Mbaye. waaw góor. Eh, gën a waay. aywa yàgg na. Eh, dama lay seetlu. naturelul de lim def ni naturelul de. rakk mën naa teel. déedéet garaaw <laughs> am naa poche. moo ne mën naa teel de. garaaw garaaw alors bonsoir à vous amis chers téléspectateurs. gis ngeen lii mooy Kaay Cover émission bu neex bu fun boo xam ni sénégalais ki toog di seetaan stress am lépp dañ koy dindi. nous allons commencer par l'initiateur vedette ki nga xam ni. ndaanaan bi nga xam ni Sénégal kenn dootu ko natable fii ci Sénégal waaye un peu partout dans le monde l'international se nomme tout simplement Mister de de Bess de Mr The Best bonsoir et bienvenue ñi ngi ci quart de finale mon cher. yeah Richard maa lay béggee ah. maa ngi béggee di béggee public bi ah, di béggee Jules di béggee Padros ah, di leen béggee yéen tamit. Ah, di jël nuyo bi tamit di ko teg ci loxo 2STV bi ah commencé ko suñu père El Hadj Ndiaye ak euh, madame. donc maam di ko bëggee bu wér di bëggee Grégoire ak euh, caméraman yeeg réalisateur yi si jàpp boobu ba léegi ñu ngi ci quart de finale yi ah yombul woon dafa metti woon trop nag waaw ñoom candidat yi sax mettit bi ñun ñoo ko daan gën a yëg mais bii moom ñun ak ñoom ñoo ko yëg c'est partagé waaw parce que candidat yi war a jouer fii yëpp imaginel ñoom ñëpp ñu fanaan studio maanaam dugg midi studio ba beneen ba xëy suba ba midi ñuy soog a génnaat voilà ñoom ñoom ñëpp loolu lañ def mm. donc du metti woon la te bu ñu prestee di ngeen xam ni liggéey nañ ko quoi waaw mm. kon donc maa ngi bëggee ñëpp ñi seetaan téléspectateurs yi ñëpp leen ziar bu wér wér yaa ngeen jëf ñii seesaan si ta kaay ko ba yaa ngi gis xale yi fii ñëw yow. Eh, xale yi dañoo jongoma de. ah yow gis nga ko sol lu weex lii kii kii xale yi dañoo pare. ki mu dendal gis nga ko kii américaine la. waaye yow ñii fu jugee. ñii ay kaana lañ boobu. eh waay ndaw sambadi. mais boo ñëwee ba côté bii da gis ay française ay wesh wesh. waaw <laughs> bëri tiitar ni man alors l'autre c'est un ami c'est un frère c'est l'international il fait partie de meilleurs yi nga xamante ni fii ci Sénégal ci wàllu solu dama ko nangul ndax day sol lu cher. barki dee mu dama doon dem di waajal benn clip mu woo ma téléphone ni ma mon ami gis naa ni mën nga lool mhm. mais dafa am fu ma la bëgg a yóbbu benn roq oh. waaye bu mu fa duggee seeraay gi laa xam ni kii nekk li muy sol lu am valeur la ma leen di ñaan ngeen tàcc bu baax a baax l'international Roger mon cher ami bonsoir Kheucha bonsoir tu vas bien bonsoir je vais très bien tu vas bien ouais bien tu bien trop bien habillé trop trop bien habillé machallah alors maa ngi leen di bëgg soo génnee ma géejawaay jeex na tàkk inchallah zone merci jërëjëf yow xam nga ne du ma la waxoon lu baax. jërëjëf jërëjëf <laughs> jërëjëf Kheucha mais c'est le seul célibataire parmi les jurys. loolu loolu laa doon casser sànq. ah ok ok <laughs> j'ai pas compris. tu es le seul célibataire. non qui est célibataire. il est marié. vous avez rien compris ah, alors. <laughs> Euh, ok maa ngi leen di nuyu. di ah. kontaan ci yéen ñaar. Ah, te euh, di leen wax nii da ngeen ko def nii nii nii. t'as rien compris yow toogal foofu. di nuyu public bi. kon di nuyu téléspectateur yi ñuy seetaan ah The Best Padros ak yéen ñaar. duo bi neex na nice na ñëpp kontaan nañ alors quart de finale yi tey du yomb comme ni ko Best waxee léegi liggéey bi métti woon na trop trop ci ginnaaw alors yàlla na ñëpp d'accord et que mu neex à tout à l'heure thank you so much mon cher ami merci kontaan nañ ci yaw mbay <laughs> mais ana ceeb bi eh, yaa ngi may topp ci gis mère Fandiaye depuis une semaine mënoo gis loolu rek la métti dañuy def yendu national ak mère Fandiaye maamam la maamam de la jàpp naan ko mère Fane Ndiaye. waaw maam la te dëgg yàlla sa kii yàlla na gudd fan mais Mbaye. mais Mbaye da nga changé comportement. mais c'est normal. <laughs> waaw waaw. Oh. nouveau marié ah, mais attends. eh waay ndaw c'est normal. mais Mbaye gis naa ni da nga bëri ci te te waxin bi dafa ah. doxin wi changé. ok ay xale sax dama ko changé. eh waay. sama dafa dépassé seen niveau. eh waay ndaw sa <laughs> ay mbay àdduna ngi mais attends célibataire bi dafa yàgg ci man mais mbay yàggoon nga ci nag yàgg naa ci lool mbay dund nga ci lu ne ma ñëw ba fin 2023 ma tëj saison bi ndeysaan barki borom Touba yàlla nag ñu wàll loolu laa def loolu <laughs> waaye ñaanal lu ñu mel ni yaw waaw faaw ngeen ah faaw ñu góorgóorlu faaw ngeen góorgóorlu yàlla baax <laughs> c'est ça ñu ngi lay nuyu di nuyu Racky di am fierté chaque euh, prime bu kay euh, Kaykover ñu jàkkaarloog yéen liggéey bi metti na ci seen côté waaye ay jàmbar ngeen su ngeen xëyee suba teel nekk ci tele bi bu ngoon gi jotoo jotee ngeen dellusiwaat jàmbaar rek moo mel ni yéen waaye tamit li ngeen di def nii defoo leen ko pour yéen defoo leen ko pour ñi ngeen di liggéeyal da ngeen koy def pour le Sénégal. ñu ngi leen di félicité bu baax. duñ la delloo li ñu jox de ndax li nga wax neex na sa xol lool waaye <laughs> duñ la delloo li ñu jox de. bu doyul sax ma dolli. bu leen fàttali nii. mbay. man fi mu ne nii dama ah. bees tàq. bu doyul ma dolli. may kor caramel la. may doolil kor caramel. bu doyul ma doyi may kor caramel. may mbay yow doolil. ma doolil eh, ma dooli. baatare. ma dooli. baatare. ci biir ah, am nañ gan laa koy joxe. am nañ gan am nañ eh, gan. Ah, bisous. na. honneur à ma maman. Sédhi ay avancé nga bëgg. Grégoire nee na avancé la bëgg. honneur à ma maman. et voilà. c'est normal. ba yëg du dem day toog. bien. eh waay. avancé. installe avancé. installe-toi maman maman installe-toi non du dem. déedéet eh, doo dem toogal. toogal luy loolu toogal toogal toogal toogal góor non non toogal jàpp yaayu buur. ba pare ci candidat yi da nga fi am turando. <laughs> am nga fi turando maman ku jong yaa koy gis kon. eh waay mais maman. quel plaisir ah ñu dalal ko. de. moo war a gagné nag. ah moo war a gagné. waaw ah, ak mën a way nag. yaa ngi far de. ana ñi ànd ak Bijou ma xool. eh wa mais far yéen tamit doon jaaral doon ànd ak moom rek. moo mën a way nag. mais maman quel plaisir. ñu àndandoo ak yow. je vous rappelle à mes chers téléspectateurs que cette grande dame cette grande diva mooy ki tax ma ñëw 2STV. ba tey rek i taxaw. keneen ak keneen taxaw kon tàccu leen ma ko bu baax a baax s'il vous plaît. maman c'est toujours un honneur ñu dalal la tey nag ci membre du jury clé nga bokk. ay waay ah. ay waay lii la yàlla dogal. li piège la frère piège la piège la. <laughs> indi gisoo lii ay mbiru yàlla la mbir bu waree baax Padros day baax rek yaay ñu nuyu la. xam nga mère Kova. waaw ci ginnaaw meer mère Kova seen yaay. waaw waaw madame Ndiaye mooy mère Kova xam nga. waaw kër gi xam nga ni mère Kova lañ ko tudd. mu ngi ci biir mooy mère Kova Moustapha mooy frère Kova. waaw mais ñoom xam nga Kova lañ bëgg. waaw Moustapha émission bi kañ lay commencé kaay Kova mooy daw ma ne ah <laughs> maa leen di nuyu. wax <laughs> nga dëgg confrontation uh, ñi nga xamante ne ñoo toog uh, di ñu setaan yëpp. Mm. Uh, man kaay ko fa bi ni ma ko fekkee tey dama kontaan xam nga dama tëñ kumpa. waaw dama génn ci bureau bi rek toog di setaan. waaw li ñu may wax ci bureau bi yëpp dégguma ko def fii moo ma ñoroon. <laughs> ma leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen félicité. parce que yéen ñaar comme ni ma tàmm di ko waxee fierté ngeen. ah et que yéen ngi liggéey liggéey bu am solo. Mhm. te li ngeen liggéey wax yéen xam nga toog di jàkkaarloog yéen rek. Hmm. ah mu nekk jantal miss ak jantal booy. ndeysaan non plaisir la nañ ko may. waaw waaw waaw li ñu joxoon ñu jox ko. non non bu leen ma may doon baax ma jox la ah jox ko non da bëggoon ku ne <laughs> jël jox ko non non non bu leen ma may ah jaar ko waaw waaw c'est bon Kheucha merci beaucoup mon amour merci beaucoup may nuyu euh, euh, le le le Mbaye Dogo xam nga demoon naa ci mariage bi le nouveau marié non demoon naa ci mariage bi ah eh, yow tamit ah. te lu bu soxor laa dëgg billaahi non <laughs> je suis le frère de Jules. du <laughs> simple. <laughs> wallaay du simple mukk merci. ma leen di bu baax a baax di leen féliciter ci initiative bi nga xamante ne mooy Kai Cover. nga xam ne mi ngi euh, wax dëgg yàlla mi ngi scotcher les gens à regarder. parce que tey xale yi euh, defe naa ni euh, bu feet amee ak mu ñàkk bañ a am yëpp ñu ngi scotché wu ci Kai Cover te loolu c'est pas évident. ah c'est pas du tout évident donc ñu leen di ñaanal bu baax a baax a baax mais Grégoire. ci ginnaaw avancé. merci beaucoup maman Eraki sans plus tarder. waaw sans plus tarder les choses sérieuses. vont bien sûr on va. accueillir nos candidats waaw Dross. waaw rek. ayca bëgg. waaw euh, candidats yi. bu ñu yeggee sur scène nañu fexe assuré. pour nu mën noon noppal ñun. déglu leen conseil la. nañu fexe assuré seen i euh, acapella assuré seen i prestation. assurer seen présence scénique assurer nañu studio bi xaw ma wala déet ñun dinañu xool mais nañu fexe def le maximum daf ñu noppal ñun. très important incha allah merci. Rachi damay daal di woo candidat yi one by one rek. ok ñi ñëw ngeen tàccu leen ñoom ñëpp. donc dama bëgg candidat bu ci mënti dugg rek yéen ngeen tàccu. acca je vais commencer par euh, Ami Lam dëkk Tivaouane. Ami Lam from Tivaouane. que je vous demande d'applaudir très très très très fort. Grégoire da nga ñuy maye leçon. Ami Lam. Je vous rappelle que ñu ngi ci quart de finale. bu ñëwal Kaay cover. ah elle est toute belle. voilà xale yi na a tàccandoo s'il vous plaît magnifique. magnifique ya ok. teer de teer bi la. yow teer bi la. non mais ce style dafa rafet. dafa nice. enchaîne avec Mbaye Diop. Par ici. From Saint-Louis. Voilà. Mbaye Diop from saint du Sénégal. Ma région, ma fierté. Mbaye Diop. Mbaye Diop from Saint-Louis. Faites vite s'il vous plaît derrière ah ñu gaaw tuuti rek ci candidat yi waaw. c'est que nag dañoo jël suñuy précautions ay garde. dimbali leen ma bu ñu jaaree nii ah dañuy jaaree ci kanam s'il vous plaît. kanam s'il vous plaît. Mbaye from saint Yes. Et euh, je Magnifique. vais appeler la tenue. Tala Sow from Guédiawaye et Sophia Fall Ndiaye Tala Sow from Guédiawaye. Sophia, Tala. Et Sophia. nañ jaar ci kanam s'il Tala Sow et Sophia. Mr Tala. bien Talla mon ami dañ koy noté de fa Talla. Talla dëkk Reena dañ koy acca Talla. bien et Sophia dëkk Dakar. allez. yëgal saa. mais da ngeen a sensé. mais Talla sensé mu ne eh, ma niveau bi la niveau bi la niveau bi bu ma rey waay. Aïcha ak Kandra Alors, euh, la meilleure scène avec Nogay Diouf from Charoy. Nogay Diouf from Charoy. Akan Nogay Kabir from Saint-Louis. Et Kabir from Saint-Louis. Nogay Diouf. Charoy. Kabir, Kabir Saint-Louis. Saint-Louis. Allez. On aura aussi euh, Tafa Sambo. Tafa Sambo. Louga. Ndeye Gueye Guédiawaye. Ndeye Gueye Guédiawaye. Tafasa Louga. Ndeye Gueye yow daa saabu nag soo ko faa. yaa bëri tiital sama xarit bi. xoolal ah. Tafa ak ma ci tuuti. waay Tafa waay. Ndeye Gueye Guédiawaye. Richard, on enchaîne avec Ndeye Mati Kassé Diakhaye. Ndeye Mati Kassé Diakhaye. Et Izo Diouf Neymati et Iso en place. waaw jëlal Iso <laughs> xale yi simple ñu aha aha. merci. waaw jërëjëf. Acharaki. Babacar Sar Zakmbao. Babacar Zakmbao. Et Suzanne Khari Diop de Dakar. Et Suzanne Khari Diop de Dakar. Dakar. Babacar et Suzanne. Oh. La star Suzanne. Waay Suzanne waay. Oh. Waay Babacar waay. Eh waay. Dañu ànd seen style bopp de. Ah, Dakar. Seynabou Wuri ah, ah, Wuri. OK. Seynabou <laughs> mais excuse-nous. mais xale yi moom macha allah. waaw baax na rek. damay ñëw. Euh, yegale Bijou Ngoné. waaw Gedda Pam. Diop moom gën si Mbaaw. ak Mamadou. Diop Doudou notre Bijou <laughs> Bijou Bijou. et Mamadou Diop from Thiès. Bijou Bijou. Bijou <laughs> mais. <laughs> mooy Sile nag <laughs> mooy Sile. non Doudou kay kay kay kay Doudou. ñeme. Doudou viens s'il te plaît. Doudou Tacha. waaw dama bëgg nga gis yére bi ci ginnaaw Doudou kay. du fan la ci ginnaaw lan nga ci bind. ci ginnaaw lu ci bind. jëlal. duuf duuf. duuf su duuf il est doux et c'est doux jërëjëf. alors c'est les candidats. voilà Tacha va sur nos ah ah. ñi mën a par duo la. d'accord donc ñoom ñëpp a defandoo benn single single bi nag bu ci nekk. Ah. am na plusieurs voyages. bés daal day léegi Grégoire xam nga dañ leen daan yéege rek wàcce leen. waaw tey dama bëgg mu may leen ambiance public bi cons gars yi bégee reetaan avant leen di wàccee Gré. waaw mets-moi de la musique vous allez danser pour vos fans c'est bon. beaucoup. Merci alors beaucoup. chers candidats dans quelques instants dañuy commencer ak ju njëkk donc xale yi ñu ngi leen di ñaan ngeen déglu attentivement parce que fii quart de finale la te après demi-finale finale alors s'il vous plaît ma leen di ñaan ngeen tàccu leen ñoom ñëpp en masse ñu rejoindra seen place et qu'on va démarrer l'international MP mbokkum yaay Bob Marley. <laughs> ana Fabi. Kheucha. ah. Kheucha public bi dañuy indi seen sabar. dañuy indi seen sabar. sabar dama bëgg ñu may leen deux minutes rek ñu joxe seeni yëngalu boobu. ayca ma xool loolu sans Grégoire nag. ayca let's go guys. let's go mu gaaw. na gaaw na gaaw na gaaw temps dafa xat. yi. donc euh, dem na këng waxi mag dem na dem taal. les choses sérieuses quoi. lu waay doon jaay léegi mu lamb. waaw waaw. ma ne ku fekkee ni da ngeen am stress. <laughs> dina leen wutal suukar. ngeen mat ci ko ndax moment yi. waaw mooy moment yi ngeen doon xaar. alors les candidats ils sont déjà prêts et Racky. waaw en première ñan la woo. on va commencer avec Ami Lam. Tiwawan et Mbaye Diop Saint-Louis. Amilam Tiwawan, Mbaye Diop Saint-Louis pour débuter. Amis chers téléspectateurs, tenez-vous prêts et regardez. C'est des jeunes pétris de talent. Ils sont vraiment à la hauteur et vous allez aimer tout de suite. Si c'est bon, venez nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Ils vont interpréter quelle chanson euh, Euh, j'ai pas reçu les titres. mais xam naa ñoom bu ñu yeggee rek ñu daal donnez-nous les titres s'il vous plaît avant que ñoom ñu nuy wax seen titre. di leen ñaan. avec l'aide de l'organisation. jël leen seen i temps ci seen oh, yàgg nañu ko gérer. ndax ay ndaanaan ngeen. booy yàgg nañu ko gérer alors. kon neex na les amis c'est bon. Mbaye ñu bàyyi la nga nuyanteeg téléspectateurs yi nuyanteeg sénégalais yi ak sa baat nuyu membre du jury bu ko defee ñu tàmbali c'est les quarts de finale. salaamaaleykum nuyu naa leen yéen ñëpp di waa Sénégal waa Saint-Louis di jury yi fi toog di nuyu ñëpp fi teew merci beaucoup. Rester assis à t'attendre Nuit jour sans même te voir Toog naa fi di suba la si mon amour n'a pas su te guider vers la salut alors va-t'en ne reviens plus malgré les faiblesses de mon âme je saurai m'en aller oui je saurai me résigner Mais l'important trouve à travers le temps pour des Merci Mbaye Diop Saint-Louis. salaamaaleykum. maa ngi di nuyu ñëpp. di nuyu waa Tivaouane bu baax. wu jaar. su ko fàttaliko war na la yeey ci àddina Merci, ami Lam. Amis chers téléspectateurs, tenez-vous prêts. Et si c'est bon à la régie, vous allez interpréter quelle chanson, ami Midley le quoi Taï dañ ko ak affaire yu bari. Donc vous allez découvrir ça ensemble. Si c'est bon, Grégoire, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Merci, merci à vous. Ouais, mais déjà, <laughs> Alors, euh, je vais commencer par euh, Bijou Ngoné. Merci. Ah, mooy suñu gan. tata Bijou. déet déet teel na teel na yow do jël ah, gan ah, rek ah. gane la ah dama koy ganale nag. yaay booy teg na la teg na la pression nag. suñu suñu yaay xam naa ne du alors déglu leen ñu déglu ki nga xam ni. kenn du ko nax ci musique ndax kuy ànd ak Latou Diop dégg ngeen bàyyi jor Demba dégg ngeen Koura Falek dégg ngeen Demba Sey dégg ngeen bàyyi Maria Sine may sa bige may sa bige maar Ajib a nga condoob njarka Demba nga lambaay njindoo nji faramaren di Wally Balago Seck qu'on salue au passage di ko nuyu bu baax a baax ñu ngi koy gërëm alors kenn mënu laa nax ci musique ngay géwal ku ne xam la ku ne déglu la nga yàgg dalal ay ndaanaan tey nga taxaw ci sa ay kanamu doom ay kanamu rakk ay kanamu xale yoo xam ni macha allah ils sont de talent lan nga gis tey <laughs> du nit nag ah. xam nga ne Momo Dieng dafa bokk ci artiste yi gën a méttee toppandoo imité c'est vrai waaw dafa mën mm-hmm. euh, <laughs> te lii rek nga gisagum nag ah. ay bu ñeneen ñi ñëwee sa ndax dinaa ko xaar <laughs> est-ce que après nga briefé ma parce que lii daf ma xaw a jaaxal loolu sax. Eh waaw xam naa ni. Euh, kon daal loo gis ñaari xale yi. vraiment très bien. tàccu leen loolu ma xool s'il vous plaît. alors Dos. yàgg nga leen gis. Mhm. depuis que ñuy commencé poule yi. ba tey ci quart de finale. yàgg laa bégal tey seen prestation naka la la def. Euh, ni mu débuté neex na. ndeysaan ni mu débuté neex na. tey dama dama am lu ma bett ci mbay Diop. ah waaw parce que dama dégg yeneen euh, timbre yoo xamee bokkul la mu daan indi. effectivement bi mu ñëwee ci acapella daf ko confirmer et que lii wane na ni que booy yi dégluwaat lu seen bopp. dëgg na xam nañu erreur yi ñu doon def Mbaye Diop dafa amoon euh, benn problème mooy tendre vocalam buy tendre vocalam da ngay dégg day trembler ah. mais dafa am justesse boo xamante ni liggéey na ko. ci voix bi ba am na fu mu doon tendre vocal ci bi muy woy Tafa Jara bi am na fu mu dem ba yegg fa rek dafa téye boppam. ndeysaan loolu moo lay wan ni que liggéey dafa am solo ci sa voix parce que voix bi ngay bi ngay liggéey moo lay dimbali pour lii. Euh, Amina am aussi ñëw assurer euh, euh, a cappella bi cest à ñoom ñaar ñëpp ci a cappella dañu dóom. ci biir morceau bi dama dégg ay pont yu doy Eh comme ni ko ju euh, comme ni ko euh, Bijou waxee léegi léegi bi mu yegsee déglu naa premier euh, couplet bi nice na mais après ci deuxième couplet bi bi mu ñëwee ci Momo Dieng dama dee quoi. ndeysaan lu gaa Mbaye Diop. ndeysaan non dafa def lu doom. Ami Lam aussi ñëw fekk si ko ak wane wane wane aussi que ni mën na ko quoi. Ah. c'est-à-dire ñoom ñaar tey bu ñu doon joxe mën naa ni mën nañu jël raw gàddu gi quoi. eh te lii nga gisagu ci gàttal waaw ci gàttal te lii merci beaucoup félicitations. on vous remercie. et bonne chance Racky on enchaîne. avec euh, Talla Sow et Sophia Fall Dakar. ñoo ngi euh, la chanson de Ndongolo. liggéey et Sophia de Ndongolo. liggéey liggéey. <laughs> dos mi ngi may fàttali Balla Gaye fii mu doon dos. Dembis dos. Adja viens Talla c'est pour l'aider hein. acca Talla taxaw leen Talla sama wet yow ci wetu rakki Talla ok alors ñu ngi leen di le groupe Icône. ñoom tamit nekk ay xale yoo xamante ni macha allah di bay seen waar maa ngi leen di nuy bu baax dégg ngeen yéen ci jàmm yéen cool léegi-léegi dinañ leen fi namm sur scène dégg ngeen ngeen may ñu playback incha allah alors alaj taala Sénégal a ngoog àddina ngoog ñu ngi ci quart de finale yi ñu bàyyi la nga nuyenteeg ñoom yow tam wane sa baat ndax ndaanaan piir nga aca bon salaamaaleykum leen nuyu yéen ñëpp waaw di nuy tamit ñu fi toog ñëpp waaw di nuyu tamit les membres du jury maa ngi nuyu ñëpp daal <laughs> non tey ak wax ji wax ji du bari jëf ji mooy ëpp xam ngeen ni la Goodwies soo duggee ci réew mi doomi yaa ngi taxawaloo xam ngeen ni laa goduwees xëca soo duggee ci réew mi doomi aadama yaa ngi taxawaaloo silmaxaa ngi ci biir njaajaan ñi gaañ yi yërëm leen kooy jur sa doom xamoo ko xees lambaa mu ñuul lii de yàlla la xam ngeen ni laa godu wees soo duggee ci réew mi doomi aadama yaa ngi taxawaaloo daan dox te mënatoo dox daan wax te mënatoo wax mbaa ngay xool de mënatoo xool bi natoo ka diis ci doomi aadama yàlla noppi na Bravo, Tala. Merci. Nopilen. Nopilen. Alors, <laughs> Raki. Aha. Sophia. ñu bàyyi la yow ak sénégalais yi. asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa àdduna maa ngi nuyu képp ku fi toog di nuyu sama fans yi bu baax. di nuyu aussi monsieur le maire Abdou Aziz Diané ndax bu ma nit ñi seet seetaan see tey moom moo ko waral sëñ Saliou boo ko laalee jeunesse bay jóg alors amis chers téléspectateurs ils vont interpréter quelle chanson encore Racky la chanson de Nongolo c'est ce que t'as dit la chanson de Nongolo liggéey liggéey wow. si c'est bon Mister Grégoire à vous 5 4 3 c'est parti parking ay dañu lay jëriñoo doo jëriñ la ba bay doom yaay yoon bu diis moo fa jëm yaaye boo ñemee yan bi boo demee toog boo ñemee wul doo dem bay toog nga di ma liggéeyloo ba xëy fa xam na ma dem lii dafa ñaaw te bii mooy ban Kheucha gis nga daaneelu taala bi est-ce que <laughs> waaw mais les membres du jury naka ngeen gisee euh, prestation wu Sophia et Talla Padros wala sama yaay waaw euh, di leen féliciter ci prestation bi d'abord Euh, ma commencé ci Talla Talla tey am na lu mu changé un peu ci côté présence scénique parce que c'est vrai que des fois dafay ànd ak musique la ngay la ngay def sur scène gesticuler corps facial ak ñoom seen waaye tey am na lu mu joué un peu sur scène. Dross doguma la. waaw mais gis naa ne kuy suivre gars yi nga. waaw mais c'est normal ndax Talla fii la taxaw ni ma xëcaa ah, man ka waaw. mu ne ma nga jàpp ni fii ak fee ñaata paa laa mën a dox pour bañ a daanu. Mhm. ma wàññil ko ni ko set. <laughs> sama xarit bi. voilà donc loolu entraîné na ko c'est vrai que Lago warul tee nga mën a def li nga bëgg a def sur scène. parce que nit la comme ñëpp quoi. mais euh, tey ci côté présence scénique am na lu mu lu mu liggéey mais Talla tey dafa xaw a déconné ci côté a cappella waaw Talla dafa déconné côté boobu c'est vrai que voix bi mi ngi fii waaye la mu daan joxe ci a tey joxuñu ko. ñun gisuñu ko parce que euh, voix bi c'est vrai que way na loo xamante ni joué na ci sentiment wu nit ñi ak thème bi mu way waaye voix bi moo justul voix bi dafa des lu bëri loo xamee tey bu ko travaillé peut-être après euh, mën na ko may leneen mais tala bul bul bul bul daw bul wari quoi voilà donc euh, prestation bi nice na ci côté studio au semi studio bi tala na ko Sophia acapella bi nice puissance voix bi wane na ko ci biir voy bi aussi parce que dama jàppoon ni Sophia dafa jàpp ni way yuuxu rek la déedéet du yuuxu foofu xaw na am tuuti lu des mais bi mu ñëwee ci biir way wi comme way wi ñu leen jox dafa xaw a compliqué Youssou ak Ndongolo waaw te ñoom ci suuf lañ ko wayee bi mu ñëwee foofu fexe na ba rattrapé loolu donc tey la mu perte fële am na ko ci biir morceau bi quoi très bien donc présence scénique aussi nice dans l'ensemble merci et euh, ma bijou naka nga gisee ñaari candidat yi prestation yu njëkk yi uh-huh. euh, mais Sofia mm-hmm. Sofia da ngay manqué da nga manqué tuuti mel ni nga xaw a timide wala sedd bi xaw la jàpp waaw da nga amaale tuuti benn timidité booy booy dégagé mm-hmm. alors que boo friwee euh, wax dëgg yàlla pour nga doon star ci sa scène day yomb d'accord donc c'est très important il faut que nga bàyyeeku xaw a fri tuuti je sais pas xaw ma lan moo la xaw a tënk mais euh, je me dis war nga mën a def lu gën li nga xamante ne yaa ngi koy yaa ngi koy nga gën euh, baa ngi fii baat baa ngi fii. très bien mën nga nga gën a free tuuti. d'accord euh, Talla sinon Talla waaw ci thème la woyee ci lim woyee wayee kenn mënu ci wax dara. Mm. parce que li li nga dund boo koy wax. Mm-hmm. defe naa du xaw a metti la. mais quand même ci thème la wayee. Euh, beneen bi ci topp di Patos mi ngi koy wax léegi euh, defe naa ne am na fulla defe defe naa ci li nga xamante ne dal na ko. Ah. am na fulla parce que daaneel bi yëpp moom la de. <laughs> Ah, daaneel bi yëpp moom la. merci beaucoup ma xam naa ni yow ci kanam tuuti. damay bëgg nga nga nga joindral ma gars yi fee ci ginnaaw di noté waale en même temps. waaw xëcc bàyyi ma dem ci ginnaaw. waaw di waaw ah. loolu mënut moom nee na nee na nee nee na nee na dafa xaw a timide quoi bugul bugul frustré xale yi daal. frustré xale yi te xam ndeysaan et ça se comprend. te Zbest xam na ne bu ma noté rek day métti. Eh, ay bu ko ay bu ko confrontation yi. gars yi doxal parce que quart de finale la ñu nekk. ah ñu ngi jëm finale ak demi finale jaax na ma waa damay ñëw mu normal. mu normal mu normal. boobaa baadu bisu confrontation mooy ñëw. confrontation mooy ñëw kon bi tax dina yegg si. jërëjëf. <laughs> merci beaucoup Racky. merci beaucoup Chacha on enchaîne avec euh, Nogay Diouf Thiaroye et euh, Kébir Saint-Louis. Nogay Diouf Thiaroye Kébir Saint-Louis ils vont interpréter quoi Racky. Euh, ils vont interpréter la chanson de Massané. oh Saliou. oh ça c'est ma chanson. Grégoire, Grégoire, tu te rappelles que c'est la seule chanson qui m'avait fait pleurer à la télé et je me rappelle c'était avec Rema Diop Saliou bi daf ma On verra bien alors tenez-vous prêts les amis amis chers téléspectateurs voici Kabir from saint on va l'écouter d'abord pour chanter à travers sa voix et juste après nous allons lui donner le micro. Eh, lui et euh, la petite demoiselle c'est bon c'est parti salaamaaleykum waa adduna salaamaaleykum waa Sénégal maa ngi leen di nuyu di nuyu aussi waa Ndar di nuyu waa Jaxaay maa ngi leen nuyu bu baax yaay boy kaay jël ma balaa ma dem géej ci bile noppil doom awo noppil doom xam nga balaa jant bee sow sa yaay ñëw jël la yaay yaay yaay daal tey dina seere nag rek tey dina seere de déglul lii déglul kii ñëw doxala salaamaaleykum waa yëmbal benn brak salaamaaleykum waa caaro yi yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu salaamaaleykum Bess Jules Padros góor ndigam mati sa samba jee public bu raki ah. public bu discipliné la ñu am. ndax dama gis ni ñoom ku way lu neex ñu yooxu la tàccu la yéen tàccu leen seen bopp da ngeen discipliné trop et merci beaucoup ah merci beaucoup pour ça. alors amis chers téléspectateurs vos moments nous suivent ñu ngi leen di nuyu yaay booy yeeg papa yëpp alors si c'est bon Missiré Grégoire 5 4 3 2 1 c'est parti. ngeen mujj jël Saliou changé waat leneen yéenay bandi Racky ma bàyyi la ak Padros Padros naka nga gisee euh, Nogay on écoute s'il vous plaît Nogay Diouf voilà d'abord dañuy féliciter Best ci li nga xam liggéey na ko parce que man li ma fi dégg gum yëpp ay mosolo yoo xam ne ay chef d'œuvre la c'est-à-dire fe ba ilaa yow mi diin du mos fay euh, Massané clin d'œil bi mu def ci moom nice na ñu koy féliciter moom euh, best di féliciter deux candidats yi ci prestation bi seen prestation sur scène prestation euh, présence bi ak prestation sur scène bi nice na ñu ngi leen di féliciter macha allah euh, studio bi aussi nice nice suñu ñëwee ci acapella yi day rejoindre studio bi ay quelques lacunes yoo xam ne am na ci euh, ki nga xam ne moom moo di Nogay Diouf Nogay Diouf euh, da nga mën a way danga mën a way mën nga way torop mais bu leen fàtte ni nekk goo leen ay waykat yoo xamee ay chanteur confirmé ngeen mënoo leen yàgg ci micro bu leen di yàggati ci micro def leen l'essentiel ngeen dem parce que waykat confirmé am na compétition wu ñu jox ko micro mu taxaw di way pendant cinq heures de temps mais yéen amagoo leen compétition boobu léegi bu ngeen wayee l'essentiel rek dem leen parce que lii compétition la lu ngeen def ci erreur dañu koy noté. ñu ñamal ñu rek quoi. voilà ok lii compétition lu ñuy lu ngeen ci ay erreur dañu koy noté commencement bi ba quatrième mesure baax na après foofu nga defee ay erreur parce que wane nañ que amoo koof ba pare amoo si souffle bu baax quoi donc moo tax nga def ay quelque fausses notes. mais nice na ci ci acapella bi. magnifique. Euh, Kabir. acapella bi nice. D'accord. Magnifique. Merci Alors merci beaucoup Kabir. Merci, beaucoup Diouf Nogay. jërëjëf tàccu leen leen bu baax a baax s'il vous plaît. Raki on enchaîne avec qui. On enchaîne avec euh, Tafa Samb. Tafa Samb et Ndeye Gueye. et Tafa Samb ils vont interpréter quoi? La chanson d'Aïda Samb. Aïda Samb Lavador macha allah ayca yegg si leen ñu xool yéen tamit lan ngeen nu indil mbay mon très cher ma bàyyi lak Sénégal bàyyi la ak àddina bàyyi lak ak aussi les membres du jury ak public bi fi ne. asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa àddina maa ngi leen nuyu ak sa sant. jigéen a kay moome je vais de la femme je suis être ta ma sa jabar la bëgg doone su jëfandikoo ku doone su ma la nee nañu si nga foon yi loolu li fi ñoom ma bàyyi woon ba tey ji la jóg fii. asalaamaaleykum maa ngi tudd Ndeye Gueye dëkk Géejawaay maa ngi nuyu ñëpp nuyu naa waa Géejawaay sama fans yi Adisa yàgg yes merci Racky ils vont interpréter la chanson de qui encore merci beaucoup alors à vous amis chers téléspectateurs chers membres du jury cher public tenez-vous prêts et si c'est bon Mister Grégoire 5 4 3 2 1, c'est parti. waa ji àddina bi yàqu na soxna si demum sëriñ bi bind xaatim jola nga daal di suul ci buntu këram li dafa ñaaw li du lu baax jëf ji lii dafa ñaaw bilaay lii du lu baax te lii dafa ñaaw jëf la ta sànku sama yaram daw daw si lee ci la xam ni xuloo baaxul woo naa merci merci beaucoup <laughs> ni kii ah xuloo nag bilaay bu kenn xuloo ku weddi laaj waa <laughs> Racky. mais Racky lu xew foofu leeralal euh, loolu. <laughs> Racky loolu bëgg nañ mu leer. non après après à suivre. <laughs> Patros. yee xëcca. buñ concentré woon dañ concentré waaye wax la gars yi. ah mais des fois faaw ñu wax su limbo yi nag. ah ñuy dugg ci suuf. waaw amul problème yàqu dara te dala koy def yow faaw mu leer. lii yëfu xale la waaw na leer. na ku def lu ko neex yëfu xale la. Racky. xuloo baaxul ñu laaj la ko yow it. xëcca jubóo euh, Patros. xaaral ma fëgg samay nopp sax. <laughs> damay laaj ba xam jubóo nga. waaw dama xuloo woon bay jubóo yéen kan laa xuloo kan laa jubóo woon. Padros. ah Racky naka nga gisee. Racky ah, nekkal avocat Racky nekkal avocat rek eh, taxaw ci digg bi. man naar laa yaa war jàppale. yéen ñëpp xam ngeen ni man naar moom xam nañ jikkoom. Ah, waaw moom <laughs> naar moom day nettali rek mi ngi def jikkoom. ay ca Padros. Euh, Tafa ak Ndogay Ndeye Guèye ñu ngi leen di féliciter prestation bi nice na aussi ak. Euh, comme ni ma ko waxee tout à l'heure euh, sound yi ñu indi benn bu ci nekk ay chef d'œuvre la quoi c'est-à-dire benn bu ci nekk période tam dafa def hit voilà donc euh, di ñëw ci seen prestation playback yi euh, Tafa non Tafa chaque jour daf may daf may daaneel quoi man chaque jour Tafa ci ci a cappella c'est-à-dire moom dafay nekk à l'aise ci li muy def quoi jàppul ni sax day def compétition assurance la am ci li muy def benn affaire xanaa quoi il est free dafa free parce que li muy foowee jékki-jékki way dugg fii génn fii way dugg fii ci compétition yombul parce que compétition boo ci ñëw da préparer sa bopp mais moom dafa mel ni ku préparé wul boppam loolu nag talent la quoi. il est sans stress. xanaa booy téye micro di def nii des fois du ñu dégg li ñu bëgg a dégg ñun boo téye micro da ngay téye fii am na looy way looy soxla bu la neexee nga téye nii voilà ci sa ay. prime yu bari dama koy bëgg a wax mais dama koy fàtte côté boobu rek mooy problème bi ci côté acapella euh, ci bi sound bi dafa dafa non dafa nekkat à l'aise il a déchiré le morceau quoi voilà ok ndéggéey da am benn particularité yow ndéggéey amul kenn ku ma bokkal ci compétition bi yëpp voix su ma koy déglu damay déglu Mati Thiam Dogo sa voix unique quoi Mati Thiam Dogo lay dégg ok voix bu spéciale la am voilà ci acapella bi nice na ci présence scénique bi nice na ci biir morceau bi aussi nice na. magnifique. merci et tout à l'heure jaa ngeen jëf mën ngeen rejoindre ñeneen ñi. merci beaucoup merci euh, balaa ngay accueillir lay xamal ni la. Ah. ci yi nga ne nii bu ci génnul fan yii. Hmm. dinaa indi man it sama yos. yaa ngi indi. <laughs> dégg nga ma. nga man dafa am koo may. déet donc damay profité ci situation bi. léegi nag foog nga nekk nit. ndax boo nekkul nit. li ah. nga may def naa la ko def. Chacha ah. Djibo nga. te kenn xamul lu xew sax yow noppi. man de fi ma la jàpp dafa dëgër. <laughs> donc Chacha on va enchaîner. Magali damaa juboo. ah Magali. yaa ngi ree aja. <laughs> waaye kan nga xulool sax. moo ma jaaxal booy jubóo général yow. alors on va enchaîner avec Ndeye Mathi et Izo. dañuy. Euh... Izo from Yeumbeul et Ndeye Mathi. dañuy interpréter la chanson de Wally Balago Seck Natural I, Love. I Wally Balago Seck. waaw merci alors. Ndeye Madi waay ok c'est bon merci c'est bon merci alors ñoom naan nag noonu la amee mbooloo nañ leen ko waxal rek ah dañu am mbooloo macha allah ana ñi ànd xale yu ma xool ah magnifique macha alo alors si c'est bon on va les écouter ngeen may leen tuuti nag ñoom tam ñu way on est d'accord Izo en premier c'est parti. salaamaaleykum. waa kaay koofu maa ngi leen nuyu di Zil di nuyu Bercy di nuyu sama gaay yi du jàmmi borom maa ci xamu dara yi lépp yëngu yow la ñoo ji yëgula fekke wañu fintu wax du ñaaw am baaru baari lool tey ko sa ginnaaw bu ma gisee tim ree ma wan la ginnaaw nga yàq sama der du ma jaar dara bàyyi di baakaaru wax lu wóorul yaay du fi nit l'islam du kuy aaye jàpp sama doom ji door ma taxaw di xool bu sa yaram dee daw nga bàyyi koy diw am na yi milliard nga dugg ci nguuram balaa ma lii naw jéemalu tinoon il a chanté pour nous hein Jules Bess Padros il a chanté pour nous c'est une belle chanson ça alors Ndeye on écoute Ndeye à toi et eh, sama maa leen nuyu et eh, leen ne gone ensemble, s'il vous plaît. Wally Balago Sec, Ils vont interpréter la chanson de Wally Balago Sec. Alors, si c'est bon, Monsieur Grégoire, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. xale bi gën naa ni dama ko bëgg ngir yàlla ay baay bam bu muy jàll amul beneen mbindee bu fa jàll buy doog ci taagu ci koñ bi day dal écoute, s'il vous plaît. On écoute, on écoute, Merci. on écoute et on écoute. Il y a des wow. Ah. connaisseurs ici. Wow, Il est dit prestation de Mati Isodouf. De Mati Kassé. Euh, d'abord dire fait kenn ku ci nekk. Dégager de chaleur aussi am na loolu Yes waaw. Euh, ci acapella yi day mati macha allah. ci acapella yi ISO macha allah waaye dafa am problème bu am ci biir sound bi. déglu leen waaye. c'est-à-dire euh, artiste da mat sëg suñ la jëlee ci moderne yóbbu la ci traditionnel nga assuré Némati dafa am benn voix traditionnelle c'est-à-dire li nekk ci moom buy nekk ci mondam dafay nekk à l'aise bu nu ko jëlee ci mondam dugal ko beneen monde day xaw a am tuuti problème. jéem na nag lijjanti jéem na lijjanti boppam ci biir morceau bi waaye am na lu des li des nag ci ñun la nekk iso aussi la même chose c'est-à-dire li dal Ndeye Maty moo dal iso ci biir morceau bi mais ay waykat lañu ay ndaanaan lañu merci merci merci Padros merci de les applaudir très très très très fort Raki wow, je vais enchaîner avec euh, et Babacar Suzanne Khari i eh, Babacar Diop nee eh, interpréter quoi euh, la chanson de Drid Maxime Mbolo ah Drid Maxime Mbolo Drid Maxime Mbolo ok alors par ici Babacar on les écoute s'il vous plaît si c'est bon tenez-vous prêts c'est bon Babacar aja ma leen di jaar yéen sama yaayo booy di seetaan aduna di ma di soobo sama maam daana wax naan sama maam daana wax naan daba saa su xolu yaay jo dootul dogo jàmbaar magnifique Babacar merci Suzanne on t'écoute je tenais d'abord à vous remercier vous tous pour votre présence je vous salue Here in the waters grow sing Ride the give your head a cry. Who are you tumbling that's greater night that cry, but that a cry and I'm afraid by both my heat and rise up to the line and the boy up, watch your line at your boy up, but you flee to the night. Whoa. Merci. Raki, ils vont interpréter quelle chanson Bride Maxime Bolo. Alors on écoute ensemble, si c'est bon, Mr. Grégoire. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Bye. nañoo xoli doon benn Afrika te ñu booloo merci Suzanne merci Babacar Padros yeah, yeah. Um, Raki waaw Suzanne ak Babacar Sarr ñu ngi leen di féliciter prestation bi nice no the best merci ci li nu fàttaliwaat euh, euh, Drake Maxime Amar et encore une fois li nga fi def lépp tey liggéey bi mën naa ne sa xale yi attanuñu ko parce que album bii bi mu génn en 2007 waxuma la Sénégal mais Afrique la wër donc euh, morceau bi vraiment euh, ñu reprendre euh, chef d'œuvre la encore une fois Suzanne bu jëlul compétition bi dina ma jaaxal ah, xale bi. Suzanne. pardon sëñ nga wax de. non waxuma. Ah, ah, ah, attention attention attention. compétition la. d'accord chaque prime mën nga def erreur ci erreur boobu nga daanuñu ñu ah d'accord mën a way. waaw rek taxul nga jël compétition. dëgg la. chaque prime mën nga def erreur ci erreur bi ngay def nag ci li ñuy sukkandiku. waaw pour mën la éliminer. d'accord. voilà donc dama ni Suzanne su teewee fii mu tee nii. mën na jël compétition. d'accord là foofu laay waxee. merci beaucoup Badros taxul moom mu jël ko. ah Badros euh, si jaan dégg nga. ci bi nice na <laughs> prestation am nice na. magnifique studio aussi nice na. Ah. Babacar ndaanaan la Babacar vrai ndaanaan la. waykat la. macha allah waaye tey dafa dafa am ay erreur yu mu def ci acapella am. Hmm. je ba xam seddaay bi la wala dafa am lu ko jàpp wala stress la wala dara. dafa mel ni. tey yëngatu quoi waaw nekkul ci way nekkul ci boppam. nekkul ci boppam. ci acapella foofu dafa feeñ. mu ñëwaat confirmé waat ko encore. d'accord ci biir morceau bi. ay erreur yoo xamee dafa dugg ci ay pont yu mu yu mu yu mu mënta yegg. ok voilà dafa dugg ci ay pont moom sax corrigé na boppam ci acapella bi. d'accord way na ba mu yàgg mu corrigé boppam xam na fa mu doon dugg baaxul mu génnaat mais loolu nag. technicien moo koy découvrir mm. c'est vrai voilà et que moom après bu dégluwaatee boppam dina gis merci prestation bi ak présence scénique bi nice na merci beaucoup Badros merci à vous jaa ngeen jëf leen ma xale yi bu baax a baax a baax a baax merci dañuy enchaîner avec Wuri Thiès et Naboucha donc la dernière euh, prestation non ok <laughs> donc dañuy euh, interpréter la chanson de Marema, femme d'affaires. Marema. Ah, c'est les femmes d'affaires. Ok. c'est on les écoute d'abord. ñu nuyoo téléspectateurs yi et juste après ñu def li nga xam ne moom moo di seen a cappella Nabouja à toi. je m'appelle Seynabou. merci beaucoup Seynabou à ngi nuyu ñu fi toog ñëpp. bu ca njëkk feeñ ba ca des day la soxla bi ma la soxla teew nga fay yoole waaw ñoo lo gëy naa ko daan jël mani booy ñan man de naa la li ñuy nawe doomu garmi yaa ngi ci yow loo fekke faj ko xawma kuy booy yow kuy booy ñang booy yow booy li li jël yow booy ñang sa la rakk ndeysaan la nekkee ak man mi koy def xale yi mi ngi ni tuumaal nii la nekkee ak man ci seen donc donc elles vont interpréter la chanson de Marema femme d'affaires alors si c'est bon à la régie merci cher public Chez vous, tenez-vous prêts. Elles vont interpréter la chanson de Marema, Femme d'affaires. Une très belle chanson, mais on écoute. Si c'est bon, Grégoire. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Suma Señor, femme d'affaires, la idole. banque compte xaalis xëccu xaalis suma sañoon femme d'affaires lay doon toog ci banque compte xaalis xëccu xaalis Quanto febra de On écoute s'il vous plaît, Mr. Padros. Ça sera trop serré, mais je vous rappelle que Bess. C'est compliqué, hein. Et Jules. Eux aussi, ils sont en train de regarder. Tenyom Tam ci jury yi la ñu bokk. C'est vrai. Très Justement, bien. ils vont pas interpréter peut-être du ñu wax mais ñoom ñi ngi noté ci seen xel. Voilà. Alors Dross, noo gisee xale yi. Euh, d'abord Seynabou Diarra ah jara Wuri Diallo ah ñoom ñaar la. Seynabou Diarra Wuri Diallo ñu ngi leen di féliciter seen prestation nice na euh, présence euh, présence scénique bi nice yéen ñaar ñëpp am ngeen chaleur et que dégagé ngeen ko aussi ci côté studio nice mais damay rappeler que lii compétition la mën nga mën a way ñëw ba ci jour bi ñu éliminer la dëgg la sab ndaanaan réer la dëgg la sinon kon Real du dem ba final ñu éliminer ko wallaay dëgg la Ligue des champions. wala beneen équipe comme rek Paris waaw sama équipe. wala Paris euh, Saint-Germain sa équipe bi waaw. c'est gentil yéen ci gàcce ngeen dëkk. Euh, Seynabou mën nga way waaye tey dama dama la sentirul quoi c'est-à-dire sa voix bi day traîner ci acapella bi waaw sa voix bi day traîner donc euh, ba pare dégluwoo sa bopp li ngay def tu as la yaa ngi def mais dégluwoo li def à la base. donc euh, pour ndey ndeysaan ba ñëw day doon problème et lii la dal moo dal. Euh, wuri comment il s'appelle wuri li dal moo dal wuri wuri wuri sax moo gën a sëy na bu sax moo xaw a tane tuuti mais wuri tey voix bi dafa traîner carrément comment naka la traîner way mesure la dafa am ay mesure am na foo yegg si da ngay souffler bu fekkee musique day dugg solo dugg nga dem bu jaree noppalu ko noppalu ko jël leen seen temps. seen compétition ngeen nekk bu leen ko kenn yàqal mais ci acapella yi yéen ñaar ñëpp yéen a bokk même erreur yi ngeen def et que voix yi sentiruñu ko ni ñu ko war a sentiré et que studio dañuy préparer affaire yi defar ko ba mu nice studio bi nice na mais ci seen voix yéen personnellement a ah, des na tey. merci beaucoup Mr Wadros merci à vous. Merci à, tout à l'heure Raki, c'est la dernière prestation. oui donc mais euh, avant euh... la dernière prestation j'aimerais demander. au groupe de nous rejoindre derrière parce que ñoom war nañu def playback bu tàng jër incha allah pour bégal soppe yi. Kheucha nañu enchaîner ak ñaari euh, candidats yi euh, Doudou et Guedda Pam. On appelle Doudou la Doudou. le silice Doudou Mr Dux Dou Mr Dux Dou de bijoux <laughs> alors on écoute s'il vous plaît si c'est bon on commence avec Doudou Doudou à toi pour servir le Sénégal et le monde à travers ta voix c'est parti Bonjour à toutes et à tous. Je passe le salut à tout le monde et à tous, me, à tous qui me reconnaîtront à travers la 2 TV. Merci. Africa Africa mon fi sama gént gi maa ngi ñaan yàlla woon moo ko bala ma ñibbi baza man de gént naa ci ati Afrika doon benn réew ici ou d'ailleurs nous sommes des enfants d'Afrique même si le ciel tombait luttons pour la paix kon jaamu Afrika moom lay ñaan man de jaamu Afrika mooy suñu naataange Doudou fi nga tibbee sore na de ndaanaan nga way de macha allah alors à sister notre star. salaamaaleykum nuyu naa leen bu baax nuyu naa Doudou di nuyu Zul Awalaay ak Best je t'aime maman encore une fois nuyu naa leen ñëpp. kan foore junju ya cender ay do yaayu foore junju ya cender ay do yaayu yeewoo de baay a ci mem samaam yaa karam woon digg ndawam dakk dameer rendi meju nelawaalo nelawoo xanaa lii dootul gayndeb neen gayndeb neen du mel nii gayndeb neen du dugg ci biir néeg di tànn waxambaane wi gën a yaan ci waxambaane di yóbbu kan foore ju ñu yaccandeer ay do yaayu mbay yeeyo malayo malayo ko alaa tooroodo maali jaabayo personnellement c'est pas parce que je l'appelle Bijou Ngoné <laughs> mais pour moi playback playback bi ma gën a yëngal moom la man quoi. macha allah honnêtement man sama sama gis-gisu bopp. macha allah il a une très belle voix. Ils vont interpréter la chanson de Dageti, Wajour. Dageti. Waouh. Waouh. Wajour, hein wow. Oh là une très belle chanson. Alors, amis chers téléspectateurs, tenez-vous prêts. Si c'est bon, Mister Grégoire, c'est à 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. fanweer yal nañ ma suul. dama mën a woy nag. Jules. moi chante bien. ah. sëñ loolu xësaatu xësaa nga ni. ma ni man dama mën a woy. oui. ma woy. oui. Grégoire yow lu tax nga iñaan. ayca. gàcce laay bañ dama. te je chante bien moi je sais. te tey de ce jour de yàlla naa gudd fan waaye yàlla nañ ma suul. ah neex na de neex na de neex na de. non non non non non non du xësa. xësa la de. non Grégoire tegal bàyyi lépp léegi waxee. <laughs> Euh, Patros. yow sax. amul problème ba ma am seet. c'est compliqué. ba ma am seet. garaawul. ba ma am seet ku ci nekk fa nga mëne. ba ci animation bi. acca kenn du yow. waaye waaye bàyyi koog ñii. <laughs> non mais. Euh, d'abord damay féliciter Best ci composition bi oh am na benn affaire booy utiliser ci bi sound bi xam nga genre fluide la c'est pas possible loolu foofu la musique bi nekk félicitations composition bi nice torop torop torop euh, pour ñëw ci les deux candidats oui da a jël morceau bi gën a difficile et ki naq ki gën a naqaree reprendre waaye effectivement Padros parce que dafa bari technique muy dégiti waaye chance bi ñu am ñoom ñaar mooy que danoo am as tuut ci li dégati am moo tax ñu am chance su def waay wi. magnifique. Euh, Guédé Pam li may wax euh, li ma waxoon xale bu jigéen boobu sànq. Suzanne waaw. boo jëlul compétition bi yow it ci yow la. eh waay ndaw Samba. waaw. Paros Baye li nga wax. non lu leer laa wax ah. Paros Baye nga wax. non leer xam nga pourquoi. dafa am dafa am assurance. Padros di nga génn ñu kar la fii. non mais garaawul problème amul problème. Ah, euh, dafa am assurance. ci li muy def. Guédé Pam bu nekkee sur scène yor micro. on écoute s'il day mel ni tëdd. s'il vous plaît. ni ku tëdd ci kaw lalam di way. d'accord. li dal sànq Tafa. looloo ko dal. mooy que fu ko neex lay dugg et que li mu def léegi léegi ci acapella. et les fri quoi. c'est nga ñëw ci compétition nga am fitu jël. genre way yooyu di ko reprendre parce que yooyu dafa am difficile dafa am c'est-à-dire euh, ay dafa am ay timbre yu difficile yoo yu war a nekk ci waykat bi pour nga def ko am ko et que Guédé Pam da ko assuré euh, le gars Doudou yow star nga yow yow yow star nga et que chance bi mu am tout le temps ci mondam lay nekk ba pare day dominer candidat bi muy euh, bi mu àndandool dëgg la tout le temps li ko daloon mook Suzanne ci prime bële. loolu moo ko dalaata kii dafa dominer la fille. dogo doy doguma la ci loolu moom. waaw dañuy gis day investir trop ci image am. surtout c'est important loolu ñu ngi koy bàyyi xel. très bien heure buy def prestation. xaw ma naka lay demee mais moom. da koy jaral investir ci boppam. surtout da koy jaral ci gestuelle. ci style ci lépp. artiste la alors artiste. wala star. ni moom mii la war a mel. te loolu ñëpp a ko war a bàyyi xel. waay waay la tudd ah. Doudou nee naa la yow artiste nga star nga loo amul ci musique ci yow la et que tey doo pour Sénégal mosoon naa la ko wax benn prime bu yàgg. dëgg la yow doo pour Sénégal. liggéeyal di nga am lu bari. magnifique tey prime bi nice. macha allah merci beaucoup Dou. merci beaucoup. je vous remercie. ça paye c'est bien mais ça paye c'est démarqué c'est encore mieux. <laughs> magnifique magnifique. Ragui. nous allons libérer un moment les membres du jury. En attendant Grégoire, le temps de saluer le groupe Icône. Kalen, Kalen, Kalen. Alors, Yenegisidiam, groupe Icône. Ils sont deux quand même pour représenter groupe bi yëpp mais nuyu nañu leen ci acte bi ñu def. Elles sont jeunes mais aussi am na ñeneen góor ñoo xamante ni ils sont très jeunes nekk ay xale di bay seen waar ñu bàyyi leen ak yi. bàyyi leen ak téléspectateurs yi ngeen nuyanteeg ñoom ngeen wax ñu lan ngeen gis tey ci seen moroom yi nekkoon fii ci kay Cover à toi d'abord parce que tu as le micro ma chère. ni bàyyi leen seen yaawa nga ca laale laale mooy baaxu góor bu doon lambi jigéen sa jenn aaye laaw bu ca góor nekkul jigéen a koy moome waliyaane waliyaane waliyaane ba bëccëgoo nekkul jigéen a koy woomee salaamaaleykum nuyu naa leen Recha euh, c'est vraiment un plaisir d'être là merci beaucoup kontaan nañu bu baax kon ala là aujourd'hui di gis suñu morom yi di lii parce que tamit li ñuy def ñun dàkk ñu leen ko ah voilà ils chantent allah c' est vraiment un plaisir. leen bu baax a baax s'il vous plaît merci beaucoup. merci on les applaudit très très très très très fort. on invite les candidats à venir danser ñu invité xale yi ñu ñëw candidats yi ñëw leen. c'est ça. Racky res. maa ngi leen di jox rendez euh, merci beaucoup. merci beaucoup et bonne candidat. xool moment yi merci quand même d'avoir répondu présent. c'était les quarts de finale de Kai Ils sont tous à la hauteur. Ils sont pétris de talent. C'est des jeunes qu'on remercie et qu'on félicite. Ils étaient au début plus de candidats. candidats. Ils ont pu le faire jusqu'à aujourd'hui. C'était les quarts de finale. Mais avant, de donner le nom des candidats qui seront en demi-finale. J'aimerais donner le micro à Bess pour qu'il les félicite, pour qu'il les encourage. wax leen lan la senti ci ñoom et fan la jëm ak ñoom parce que ay la lañu ñoom ñëpp dem nañu ba quart de finale. Je vais prendre l'autre micro, le temps de donner ce micro à Best. Best. nga wax ci candidat yi wax ci quart de finale bi wax naka d'abord d'abord dama leen di encourager di féliciter yes parce que euh, prime yëpp prime bi moom ma ci gën a marqué parce que ñoom ñëpp dañoo fanaan ni studio ndeysa ah maanaam ñoom ñëpp lu ñu mësul dund eh, tàccu leen xale yi s'il vous waaw liñ def fii nii tey lu ñu liggéey lu metti la du liggéey bu yom d'accord man maa def exprès loolu maanaam pour ñu xam ñu dund loolu dund ko dund artiste bi fanaan studio midi lañ dugg studio ba midi si ëllëg si ñoom ñëpp xam nga donc di leen encourager di leen féliciter leen fàttali aussi que concours bi fii kuñ fi éliminé du da ngaa mënta way moo tax mooy da ñëw def benn erreur fii ay ndaanaan a fi nekk ñi passé sax ay ndaanaan lañ parce que 509 candidats bu si ñuy desee ay ndaanaan lañ donc di fàttali aussi que ñi fi nekk ak ñi ñi ñi ñu éliminé ñëpp. j'ai j'ai déjà des producteurs yoo xam ne yu nekk fii ci réew mi ak ñu nekk France bëgg a dugg ci wàllu musique di produire am na si ñu ñu intéressé. oh donc am na si ñoo xamante ni dañ leen jox ay producteurs. yoo xamante ne ñooy jor seen carrière liggéeyal leen liggéey bu jaar eh, yoon tàccu leen loolu waaye donc am na si ñoo xamante ni label bi si boppam moom mooy jël initiative am teg group tànn ci benn cinq personnes wala six personnes yoo xamante ne ñoom ñooy doxal comme ni ñu ko defee woon ak The Best Family. macha allah ak yeneen yeneen yeneen. merci Bess bëgg naa leen. jaajëf. Souleymane walaay Jules. Bess wala wala yow nga. da ngay ñëw da ngay ñëw da ngay ñëw. mu préciser que ñoom ñëpp daanaan la ñëw. ndeysaan. ku ci daanu rek ci compétition nga nekk boo tax nga daanu. Bess wax na lépp. Jules sax dafay stressé man moom stressé wu moom moom. man moom maag Patros xam nañ ni stressé wuñ. Messieurs, dames, vous êtes chez vous et vous nous regardez. Nous sommes bien sûr sur la DZCV. C'était les quarts de finale de Kai Cover. Et finalement, nous allons retenir 10 candidats pour aller en demi-finale. Nous allons à présent citer le nom des candidats qui seront bien sûr en quart de finale. Et en premier lieu, En demi-finale, Alors, c'est les stress, Miss Padros. Les demi-finales. Qui sera le, la ou le candidat qui sera en demi-finale de Kaikovo Ça sera qui Doudou de Chase. demi-finaliste de Kai Cover. Ça candidats qui seront en demi-finale. Tenez-vous près chez vous, messieurs, dames. Ça encore. Et le nom de la deuxième personne qui sera en demi-finale de Kai il s'agit de qui Kabir Kabir de louis en demi-finale. Et messieurs, dames, qui sera la troisième personne à aller en demi-finale de Kaikover Miss Patros. Bay de Saint-Louis. Bay de Saint-Louis. Alors, Miss Padros, qui sera la quatrième personne à aller en demi-finale de Kai Guédé Pam de Guédé Jamagun. Guédé en demi-finale de Kai Cover. Et Mr. Padros, toujours, qui sera la cinquième personne à aller en demi-finale de Kai Cover. Neymati Kassé. Neymati Kassé en demi-finale. Padros, qui sera la sixième personne à aller en demi-finale de Kai Cover. Tafasamb de Louga. Tafasamb de Louga en demi-finale. Oh, c'est mignon ça. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau, Merci. Alors, qui sera 3 ou 4 3. Ça candidats qui seront en demi-finale. Mr. Padros, qui sera le prochain candidat à aller en demi-finale de Kai en demi-finale. Mr. Padros, qui sera l'avant-dernière personne à aller en demi-finale de Guy Cover. Iso Diouf de de Yumble. Ça va bien? yaa koy joxe mënu ma ko joxe bu ci suuf mënu ma ko merci. Ça reste, Padros. Ça reste en Attendez. ça reste deux. Padros. c'est vrai ambiance bi. waaw ak euh, li nga xam ni moom moo di. stress bi stress bi. yóbbu na ko ba fàtte na kenn ci kaw. c'est vrai c'est vrai alors. il de qui la personne qu'on avait déjà sauté. Suzanne. est en demi-finale. et pour Claude. <laughs> Nous allons terminer en beauté. Messieurs, dames, merci d'avoir répondu présent, cher public. Chez vous, nous vous disons merci. à l'équipe de la DGCV. Merci Souleymane Awala et Jules. Merci Borom, Carré VIP. Merci à l'international Best et l'équipe de Best. Merci à moi-même. Merci à Naki. Merci à Grégoire. Et la dernière personne qui sera en demi-finale de Kai Il s'agit de Nogai Chou. Merci à tous et d'ici là, on se rendez-vous sur les demi-finales.